aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala baax julli si sang sang yi seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala weeru koor bi ñu dugg bismillahi rahmaani rahim yàlla àggalee ñu ko si darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu génn si alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla suñu borom feebar bi nga xamante ni moo wàcc Sénégal di ñaan suñu borom yàlla faxas ko si nu mu